Euh, effectivement soo xoolee àdduna nu mu tënkoo au niveau au niveau de la population on peut cette représentativité aussi peut être mesurée si ñett yi ni trois leviers yi c' la jeunesse mm. les femmes ak aussi ñoo xam ne ñooy mag ñi euh, je pense aussi quand on parle de la jeunesse nekk aussi benn levier benn benn catégorisé benn catégorie bu am solo si loo xam ne ni moo mun a changer réew mi ëllëg donc tout le temps soo xoolee euh, soo bëggee dimbale réew aussi il faut commencer par la jeunesse soo bëggee aussi dimbale réew aussi il faut commencer aussi par les femmes ainsi de suite ainsi de suite si approche boobu noonu aussi parce que la jeunesse est beaucoup plus active par rapport aussi euh, sur l'éducation les sports euh, euh l'avenir la formation et autres moo tax aussi on a un peu aussi par la jeunesse pour les accompagner pour les motiver encore aussi par rapport aussi ak lu leen di xaar seen kanam surtout aussi leur leur leur avenir donc ces représentativité boo doon wax ni euh, au niveau au niveau du gouvernement aussi de manière euh, de manière de manière générale euh, je pense que soo xoolee comment le gouvernement est est est organisé représenté avec vingt cinq ministres et cinq secrétaires d'État qui fait à peu près trente. ñoo jël benn ministère bu am solo dénk aussi jigéen nekk aussi benn liggéey bu am solo nekk aussi benn jeune ñu boole sport la jeunesse. et aussi euh, je pense que la culture. donc lu am lu mel noonu moo lu mel noonu soo xoolee aussi le président de la République est de cette. de, de cette mhm. donc on peut pas parler de culture on ne pas parler de jeunesse sans la culture on peut pas parler de sans la jeunesse c'est c'est dafa nekk de des des yoo xam ne dañoo ànd et qui sont transversales et qui sont liées sur toute la moo tax aussi soo xoolee jaxasoo bu ko jaxasee ak lu ñu ko boole aussi c'est quelque chose aussi qui est très important et c'est un mot aussi fort qui entre même dans le cadre de la rationalisation des dépenses euh, des dépenses de l'État